Boy Ndour bébé Ousse. Boy na bébé Ousse xaw ma nag kan moo ci Boy Ndour ak bébé Ousse. Boy Ndour daa mel ni. Boy Ndour bébé Ousse. bébé Ousse door na léegi. Boy Ndour tuuse nañu ko daw na yooru. Boy Ndour da ngay lay daan dañ daan daanu nga. daanu nga waaw waaw daanu nga daanu nga dañu koo tuuse daanu na xoolal fes daanu na waaw waaw waaw Bébé Ouz na la da tuuse Bébé Bébé Ouz na